الحمد لله جل من قائل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين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 lañ ci sosoon nag moo doon alquran téere bu màgg bu tedd boobu suñu borom binduñu ñu jéem a war a hittewoo ba xam li nekk ci leetaram bile rawatina muy leetar boo xam ne ñu njariñ rekk la leetar bi ëmb leetar la boo xam ne képp ku ko jàng jëfandikoo ko danga ca indi say njariñ ak ci say xéewal waaye xam nga léeg-léeg ñu bind la leetar leetar ba ëmb sa njariñ léeg-léeg ñu bind la leetar leetar ba ëmb sa safaan ëmb la gàcce ëmb la toroxtaani léeg-léeg ñu ne la leetar nga léegi ñu ne ah diw de nee na yónnee na la ci ñaari million sa xéewal la waaye léeg-léeg tamit nga dindi leetar ba daaj ji jàngal mu ne nee na ñaari million yi nga ko ameel fii bu weer wi deexee te fayoo ko mu yóbbu la ci yoon wala nga imbi leetar ba xool mu ne la convocation la mu ne daal suba ci yi ngeen dajee police wala convocation la yaag waa tribunal wala waa dig ñoo lay woo waaye yooyu yëpp mi ngi xam ci leetar yi leetar yàlla bii nag safaan ak loola la da koo adressé ñépp ku gëm yàlla ëmbal ko ci njariñam la ca nekk bu ko pratiquer bu defee safaan ba nag mu jural ko la ci xaju moom nag convocation wu leetar bi ci ooteem ñaareel bi dafa nekk safaanab bi ñu génnee woon démb démb yaa ayyuhal na amanu bii tamit yaa ayyuhal lazina amanu ñoo ko bokkale waaye bële dafa doon tere am na yaa ayyuhal na amanu ñu ne ko labbayka yaa rabbal izzati wal jabarut mu ne laa taqulu raina bu leen waxati yonantu bi mukk baatab raina doonte yéen la ngeen ca namu am nañu cay porox ndollu di ca namu la ngeen ca namut di ko saaga yéen a ngi ca ne ko bàyyi ñu xel Euh, muñal ñu li ñuy jàngal bañ man ko nga door ñoo bàyyi suñ bopp waaye xam na ñoo xam ne ñu ngi kenn mu raay naa yee suñ dof bi yee yow suñu yambar mi yéen ngeen koy appilike ci euh, fi'lu amar bi mu ànd ak mafool bi ñee di ko appilike ci ismu ba kon bàyyi leen ko kon digal nañu laa taqulu raay kon dafa ñu tere bàyyi leen bu leen wax ba mu paree nag mu tëjee ko ndigal ne wa qulu naa wasmao door a ñëw walil kaafirina azabun alim kon boo xoolee aaya démb ji ci yaay wàlla na amano ji gannaaw bi mu indee xarfu nidaa indi munaadaa dafa indi nahyu laa taqulu dafa indi laawu nahyu ne bu leen waxati mukk ba mu teree ba mu pare mu diglehaat waaye waqulu unzur naa mu digalaat ñu tamit ne wasma'u déglu leen li ma leen di digal dégg ak nangu balaay jay jeex mu daane ko tëkku walil kaafirina asaabun alim waaye bii nag moom dafa ñoo xoo bañ xuy ko ne ko labayka yaa arhamar rahimin mu ne mu ne istainu na ngeen dimbandikoo ci seen mbir yépp su ngeen bëggee mu jag bi sabri ci muñ ku muñul doo muuñ ci àdduna barsaq sàllaaxira ñu ne ko muñ rek mën a déedéet wax salaati seen mbir yépp bu ngeen bëggee mu jub bëgg mu jag jël leen ñaari jumtukaay yi ngeen dimbalikoo ko mooy muñ ak julli kon fële dafa ñoo tere benn ba mu ñu peree ba pare digal ñu yaay walis na amoon laa taqulu raayna léegi lu ñu def mu ne waqulu unzurna wasma'u am na ñaari amru yu ca nekk yu jëm ci mbooloom jullit ñi am ñetteelu amru boo xam ne nag ñun ak yàlla la dellu mooy unzurna ñun ñun ci ñun ak bi ci la dellu yow yonent bi muñal ñu waaye ba muy jeex nag Ah, mu daanee ko la taqulu raina wa qulu unsurna wasma'u walil kafirina asabun alim mu wàccee ko daanee ko nag tëkku ci ñu wuuteeg loola waaye bii nag moom benn ndigle moo ci ne muy amru istaino muy digle nag ñaari mbir muy julli ak muñ ba muy pare mu daanee aaya ci dëxal lu mu inna allaha maa sabirina waaye lu tax waxu inna laa maal musallina te ñaar la waxoon yéen dimbandikoo leen julli ak muñ dimbandikoo leen muñ ak julli ñu ne ko dañ ko dimbandikoo mu ne waaye man nag ànd naag way muñ ña waaye ñu ne way julli ñi nag mu ne sama yoon waxu ca dara waaye anga ah kay wax na ca ba mu tuddee way muñ ña rek la dugalaale julli ña ndax ku julli ku ku muñut doo julli koo gis mu julli fa muñ fa waxtaan gën a neexee nga dégg nodd dagg ko muñ ko taxawal julli ga fa nelaw gën a neexee nga dagg ko sóoru ndox mu sedd mi sangu mbaa nga jàpp te sa torse bi dëgg ma ci jàkka ja waaye waaye dangaa muñ nelaw yu neex ya ku muñu toon doo mën a julli julleeg fajar nga liggéeye wàcc ñu teg añ bi nga añ ba pare war a noppal dégg noo dal tusubaar ga wala añ bi ñu ngi koy préparé sax di yàq pare guñu nga wan ko gannaaw topp tàngoor wi dem ca jàkka ja ku muñut doo ko def kon ba mu ne ànd naag way muññi ci sama xam-xam ànd ak way muññi ci sama ndimbal booba la àndaa léegi way julli ña ku julli muñ nga moo tax nekkul fanaan inna laa maa saabirina wal musalina déedéet maa saabirina la wax yàlla waxam dafa fasaa ji nga ko timit ji nga aaya ji li muy gàtt gàtt ñaari xeet yi ñuy jaamoo yàlla yépp aay ji ndar képp na ko jaamu yàlla ak saahir moo am ak jaamu yàlla ak baatin jaamu yàlla ak baatin gi nga xam ne yàgg sa borom rekk yéen a xam jaamu yàlla ak saahir yow xam nga sa borom xam jaamu yàlla yi xam yàlla wan ne jaamu yàlla ak baatin yépp bi ci ëpp doole mooy muñ ñi wax la lu la naqari nga xam doole am kartam ci man koo faj muñ ko ci sa biir xol waxoo ko kenn dégg lu la métti gis lu la métti lépp am ay jafe-jafe ci sa njaboot am ko ci sa sëy am ko ci say say àndandoor am ko ci say mbokk nga jël lépp bés ko ci sa xol loola la ne ca xol ba yow yaa koy yëg ak sa borom ma ko ca def kese moo bëgg wan ne kon jaamu yàllay baatin yépp mu ngi ci ëpp doole moom laa leen sant nay saayinoo bi sabri salaati nag moom ku ko def yow da nga xam ne julli nga da gis sa bopp gi julli gi yàlla dana la gis jaami yàlla yi ngay jullee danañ la gis jullikat bu ne boo jullee ci kër gi dañ la ci jàkka gi dañ la gis julli ku sene ngi gis ko kenn mënu ci dara yàlla tamit wan na jaamu yàllaay saahir yi bi ci ëpp doole mooy julli maa ngi leen koy sant jaamu yàllaay baatini bi ci ëpp loolu mooy muñ maa leen koy sant moo tax mu jël ñaari jaamu yàlla yépp benn bu ci nekk ah, représenté moromam ya salaatu jaamu yàlla ak saahir la dafa dafa fi représenté mbooleem jaamu yàllaay saahir yi aj màkkaak joxe asakaak jàng alquran ak jokk bokk ak seeti nit ku génn àdduna seeti ku feebar ak jullee demeet dimbale ku néew dooleek loolu la fi salaatu représenté waaye mooy seen kilifa yàlla tudd ko waaye ba mu ne sabru tamit muy muñ muy jaamu yàlla ak baatin ba mu ne muñ koor dugg na man ngaa woor te kenn du ko xam koo ko waxut du xam dafa woor kooku muñ gi moo ko dugalaale dugalaale dund ay naqar ci sa xol ak jafe-jafe ah yooyu yëpp ba ne bi sabr rek dugal na mboolem jaamu yàllaay baatin yi su ko defee sabru gi moo leen fi représenté yàlla nag daanee aaya yene wallahi ànd naag way muñ ne ci sama ndimbal ak ci sama xam-xam kon ñaareelu yaa ayuha ji yaa ayuha bu ama am importance la doonte boo xamul importance amu ci moo tax mu ne kon yaa ayuha alladina amanu stainu bis sabri was inna allaha maa saabiriin kon déglu leen xoote bi yéen mbooloom jullit ñi xoote bu baaxee ko ci ku màgg bëgg boo ko wuysee mu màggal la baaxee ko ci ku tedd xéene la teraanga ngir boo ko wuysee koo xamee na nii dafa laa bëgg a wàccee ci ay darajaat ya gën a kawe mu ne nag boo ca bëggee bokk rek fexeel nga gëm boo gëmee rek bokk nga ci invitation am bi de moo tax bala nga xam importance woote ak yàlla ni ma xamee doole buur bu day ni yàlla bu la wooyee boo xamoon ni boo xamutoon laaf sax jéem a yéeg ca kaw asamaan ngir ngir tiitaw laaj ko Ubay ibnu Kaab benn saxaabi yu saxaabi yu la jaliil saxaabi yu bu mag bis jot rek yonent bi ñëw ba ci moom ne ko ubayu mu ne ko labayka mu ne ko sama borom ma ma digal ne déglu ma ma jàngaxal quraan yow nga déglu ma ubay ne ko yow miñ wàccee ci yow al quraan kay xanaa yaa ko war a jàng man ma déglu la waaye yow nga di ko jàng man ma lay déglu mu ne ko waaw loolu la sama boroom sant nee na naa jàng lam yakun lazina kafaru min ahlil kitaabi nga déglu ma ko. Ubay ne ko sa borom moo la ko sant ndax dafa jaar sama tur sàmmaani allahu sàmmaani mu ne ko allahu sàmmaaka sama borom moo jaar sa tur tudd la fa bakaa sururan kaab jooya jooya jooy ubay ibnu kaab jooya jooya jooya jooy ngir ak kontaan ne yàllaa la yàllaa ma tudd mu ne ko yàlla tudd na la jaar ci sa tur wi moo ko wax mu jooy kon yow noo mën a tudd yaa xam waaye comme jënd nga carte membre iman rek nga yëg nga ñàkk a yëg yàlla jaar na ci sa turu ci yaa ayyuhal lazina amanu moo tax xadis bi nii la tëddee anas ibnu malik moo ko génnee moo ne xan anas ibnu malik qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ubay ibnu kaab inna allaha amarani an aqraa alayka lam yakun alladina kafaru min ahli alkitab qaala wa sammani laka qaala naam sammaaka fa bakaa xadis la bopp imaam ahmad solo na ko ak buxaari yu ak muslim ak tirmisi yu ak nasaa'i yu mu bokk ci xadisu saaba saabatu ya kon lii doy na daraja yàllaam lëm xoola waay waay waay waay loolaa jara tiitaroo loolaa jara puukarexoo te xam na ñoo xam ne tey ña ngay puukarexoo sax lu matut puukarexu toog ca seen boîte nuyu musicien ba xoo leen way leen ñi ñiy lagar lagar naan kaay mu kaay photo xoog man xam na ñoo xam ne bala ñoo xam lu leen dëgg ñi ànd ak am mbërëm làmb muy wane ne moom xam na leen ñii photo xoog moom xam na ñoo xam ne bala ñoo gën a mën a kontaan ab milliardaire xoo leen ñi yëg nañ dëkk xam na leen moo tax ñu mel nii buñ la xooyee lu guddi guddi guddi ah mbaa mbaa dérangé wu nga ko déedéet ah defuñu dara ñu rek a nekk nekkuñ ci dara te wallahi heure boobu waa jooju xoola moo xam président la moo xam ab ministre la moo xam am mbërëm làmbu la moo xam ab musicien la moo xam ab milliardaire la sa mbokk mi néew doole bu la ca xooxoon nga ne kii moo gàtt xel toog ba heure bii ni mu guddee muy xoote waaye yow nag yaa ngay bàkkoo ne hi ndiki gars yi xamuñ nelaw bi may woo trois heures guddi la mu mu mu si la ma xoox di ko tiitaroo kon nag bu la yàlla xooxee nag kon yow yaay yaay tiitaru ci xoote bu matub tiitar kon nag ki mat tiitar bu la xooxee nga war a tiitaru ubay bu ko defee nag ubay ku jooy ngir kontaan ñu ne nag yàlla xoosi ñu ne ko yàlla loo ñuy xooyee mu ne ñaari jaamu yàlla yi laa bëgg ngeen baxi ko xel jaamu yàlla gi nga xam ne maag yéen rekk ko yëg mu jiite leen taxaw leen ci ak jaamu yàlla gi nga xam ne man yég naa yéen yëg ngeen ñeneen yëg nañ na ngeen ko def tamu rafet tama tax ta ngeen sellal ko loolu la aaya ji wane la mu njëkk a digle nag ak xam solo muy muñ luy muñ muñ daal mooy téye sa bakkan ci lépp lu sibu nga poñe ko ba nga xam ne bakkan ba du la sóob ci lay def loolu defuwut waaye téye sa bakkan ci lu la neex bu la ganasee nga poñe bakkan bi bañ balaa màmm bay wax wax ju waxuwul ju xëpp kon naqar nekk ca dana waral muñ bànneex nekk ca dana waral muñ waaye ku jël muñ xemale ko ci naqar rek xamoo li xew ni ñuy muñee naqar noonu lañuy muñee bànneex ndax nit ñi dafa am nit ñoo xam ne su leen naqar ganesee dañuy manki manki nañ di wax wax ju waxuwul manki nañ di jëf jëf ju jëfuwul wax ju waxuwul jëm mooy di saalik torox naa fu ma jëm kii fii ma féete woon ni meloon ci man moom rek laa xamoon aw ma woon benn wéeruwaay mooy sama muy sama baay tey dee na tax takk gu ma soxna ama gu ma nangam ak nangam sama yaay fi mu jaar ak man ma bëggoon a liggéey tekki ba mën koo dimbale tey sama yaay man rek la xamoon man moom rek laa xamoon dee na torox naa wala waa ji daan ma dimbali ci xaram tabaski waxaat mu jot di ma dimbale ci saako ceeb bu jeexee dimbale ma embauché ma kooku tey dem na fu ma jëm yooyu yëpp waxi ku manqué la jëmal ba ñooña nekk gutoon fa nga nexoon jëm fa dellu xatal fa nga nexoon mu ngi yàlla su ko defee tamit man ngaa jëf-jëf yu manqué jëf yu manqué ji da gis nit koo xam ne naqara ko gane ak manqué tax moo jëndoon télévision bi ma nga mer di ko toj jëndi kaasu njëkk yi ma ngi koy toj ñu tegal ko boolu añ bi mu wéqu ko soxnaam si mën naa xam moo ko def lu ko naqari mu kes ko dóor ko manqué na bu demee ba jiifal télé bëgg a seetaan ay filma maa mu bëgg seetaan ay xibaar ci télé bi lam tojoon mu jëndi xat ko yaa manqué kaasu njëkk yi nga xam ne moom lañ la daan tegal ak meuble yi nekk ci néeg nga toj ko giif nga yaa ngi koy jëndi xaat soxna si waxoon la loolu naqari mbaa mu jëfle ko nga saaga ko ndey dóor ko balaa guddi nga tëdd ak moom kon yow yaa ngee yàq looy soxla xaat kooku ku manqué koy def léegi nag waaye am na ci nit ñi nit ñoo xam ne tamit noonu ñu mën a ñàkkee maîtriser seen bopp bu ñu amee naqar noonu lañ ñàkk a a maîtriser seen bopp bu ñu amee bànneex mooy ne bu leen bànneex see rek nga yëg ne matuñ nit nga bett ko may ko ñaari million mu nekkoon giir piir di gor piir mu mujj tay takkaayu takk ndiggam soppeeku sa géwél tay te lu sa géwélab gi de takk takk na takk na ndiggam li soppeeku sa géwél di la tagg di la tagg di la défendre di la baaxal ba mel ni kéemaan la yàlla la moo fekke woon sa lépp waaye tamit nga bett ko tamit may ko ñaari million ñetti million nga yëg ko ci comportement xam ni muy ni muy doxalee ak ni muy doxee ak ni muy ni mu ni mu kontaanee nga xool xar-xaram baa nga belli mu sigirle yooyu yëpp manqué rek waaye bu la yàlla mayee nga am ak dal bu la naqar ganesee nga dal xeex ak moom bu la bànneex ganesee nga dal xeex ak moom ne ko yow bànneex bii dooma tax a xëpp nit mukk ndax ku xëpp loo danoon ku xëpp lañ la doon doxee matatoo dara yow naqar wii dooma tax a manqué mukk danaa maîtriser bopp ba doon ki ma donoon waaye am na ci nit ñoo xam ne bu leen naqar ganesee wallaahi nga yëg ne doxatuñ kan ganoon bu leen bànneex ganesee nga yëg ne duhutum kañ moo tax yàlla ne innal insana xuliqa haluan ida massahu charru jasuan wa ida massahu alxayru manuan ñaar yi benn baaxu ci mu ne xam na ci xeeti nit ñoo xam ne dañ leen a bind rek ngir ñàkk jom dañ leen a bind rek ñi ñoo xam ne saalikat piir lañ su leen ay ganesee muy naqar ñi jàq tiit seen fur fara ya dem xamatuñu dal ña ngay xotti seen yére ya ña ngay xaañ seen bopp ña ngi koy pes ña ngay yàq seen meuble ya su leen ganesi timit euh, xéewal ganesee timit nga gis leen ña nga seen bopp nit yàlla dafa bëgg nit ki nekk montor buy dox heure montor bu nekkee buy avance baaxatul montor bu nekkee buy retard baaxagut waaye montoor bi baax mooy boo xam ne buñ ne midi mu ne midi waaye bu gaa yi ne ñu ngi ci midi nga ne maa ngi ci deux montoor amul baax baaxut dafa lay trompé waaye montoor boo xam ne bu gaa yi ne midi nga ne maa ngi ci dix heures kooka baaxut montoor ab dix nag ci midi mooy koo xam ne bu amee naqar manqué montoor ab maanaam deux heures ci une heure wala ci midi mooy montoor boo xam ne boo mooy koo xamee na ni bu xamee bànneex xëppale boppam nit commencé saata gaay tiitaw yëpp ku mu warta yëpp fuuy léeg-léeg nga gis ko ci xale yu góor yoo xam ne ñaari junne dong la xam ci poosam bi def ko ci kalpem bi fëgg kalpe ba dóor jiin ba ne billaay tey ma taxal dëkk bi ci ñaari junne kooku kay boo amoon million taxal réew mi ni manqué moo koy waral dafa bëri ci ñoo xam ne dañoo fuuy ku ci dem ba xilif benn sagarab carte grise mbaa nga dem ba xilif benn million dootoo nangooti kenn xilif la dootoo nangu sa baay xilif la doo nangu sa yaay xilif la doo nangu say mag xilif la doo nangu sax say sëriñ xilif la ngir ak sagarab million bii ngay lagar-lagari ak sagarab carte grise bii loola lépp manqué la da ngay dugg ci indal insaana xuliqa aluuxam dangay ngay dugg tamit ne kallaa inal insaana la yataxaa lu tax mu ne an raahu staxnaa mu nga xam ne ki nit ñoo xam ne wallaahi niñ mel meluñ ko waaye nag niñ melut lañ mel bala ngaa xam niñ mel na leen koom-koom ganesi bu la koom-koom ganesee rek ñu commencé dew nga ne waay waa ji moo doon ci yar woon de seet lool teeyoon lool de tey mooy cëfër cëfër yi nii fekk cëfër cëfër yi gii la meloon fa amutoon lu ko ko mën a melal waaye keroog ba ma xamee la ko mën a melal rek ngay door a xam ne nii la mel nag moo tax nit feek xamagul melut nenn feek amagul melut nenn waaye bu demee ba xam boole kook am nu mel la mel lu jar baxi xel la bari na kuy yaru yaru lu fekk day yeeru rek la muy yeeru bis bu ca jotee rek nga xam ne ku bon ngi ku doy waar a ngi nii kon nañ ci bàyyi xel insaan amul solo fu ko yàlla waxee da koy xas mbaa mu ñax ko inal insaana xuliqa aluhan kàllaa inal insaana la yatgaa qutila al insaanu ma akfarahu wal asri inal insaana la fi xusrin moom daal insaan am solo insaaniya moo am solo mooy fexe ba nite fexe ba rek mooy le am solo kon muñ ku ko jël xamale ko ci boo amee naqar xamoo li xew waaye boo xamee naqar ni ñuy sàkkoo ci yow nga muñ maîtriser sa bopp ba doo manki soo amee bànneex am koom-koom am wér am jàmm am sutura noonu lañuy ñuy sàkkoo ci yow nga muñ maîtriser sa bopp ba doo xëppal ku xëppal matatoo dara ku manki matagoo dara waaye daal kiñ soxla mooy ki mat lañ koy doxee moo tax kon nitangoog ak doxadeem nga bu demee commencé moo tax yàllaa ngi wane sax doxadeeg nit allahu ladi xalaqakum min dofin summa jaala min baadi dofin quwatan summa jaala min baadi quwatin dofan wa shaybatan yaxluqu maa yashaau wallahu alimul qadir suratu ruum aya quarante aya aya cinquante quatre yàlla ngi ne xëy doomu aadama ji doxadee doxadi doxadi ba bu ko weñ dalee sax muy bëgg a toox fu nekk ma ngay pëtë pëtë bi ay loxoom di daq weñ wa léeg-léeg weñ wi ñëw ba dal ci kaw bakkanam waaye doomu aadama gi doxadi ji nga xam ne mën naa naan ndox sax soro jaaree ca bakkan ba dee mbaa muy lekk fot jaaree ca dee wala ab yax galan ko mu jaare ca dee waaye doomu aadama mu ñàkk solo bi nga xam ne aw ñaqam dafa koy xasawal waaye ak dëgg bu ko bu ko jamee sax wala aw yoo matt ko nga ma nga yëg métit wa lu ne muy def takki ay sànke dem commencé jël euh, garab yooyu fu ne nga taal looy daw aw benn benn yoo su ndaw su ndaw mu ñëw bokk nga sa loosement bi moo tax léeg-léeg nit juum naan kër gi mu ne sama kër la maa moom titre foncier bi ngi ne sama tur ngaa juum ba nga defee sa tur war nga cee defaale yeneen i tur xam na fa ñu fa dëkkaale yow ñoo mënta génnee sa titre foncier bii yoo yaa ngi fa dëkk ak seeni njaboot yu góor ak yu jigéen ya ñëw loose fa dara nga ci mënut takk nga sànke dawuñ bàyyi nga bay gon bi lu ne nga def dara ay weñ ña fa ñëw dëkk ak yow ak seen njaboot ay gunóoran fa ñëw loose mënoo ca dara ay janaxan fa mënoo ca dara ay mbott sax léeg-léeg ñu nekk fa doo ca man dara kon bul waxati na sama kër gi waxal teesal ñu ko bokk dafa bëri sa kër gi ñu ko bokk ak de ñi nga xamee njaboot dugal ci lañu nga xam ne seen njaboot dugg ci biir léeg-léeg sax jaan dëkk fa dara nga ca mënut ñenn ña kañ yaa nga dëkk seen biir kër kër ya mënuñ ca dara moo tax waajibam ne ma man sama luyaas yi locataire dañ may fontoo weer wi dee na fayuñ ma dama leen di génne ma ne ko mbaa da nga yeneen locataire ya fa te ñoom mosuñ laa fay dara te di la yàqal man ngaa génne xaala janax ya ak yooya ak weñ ya ak gunóor ya mu ne ma dee yooyu kay man buruma ca dara saa yu ma pompe gi ñëwaat bu kon baa fa baa fa ñële tay ndaxanteeg ñoom boo ko bëggee boo defee nga am jàmm kon yow mu doxadi bi nga xam ne bu la yoo mattee sax ngay bëgg a dee doxadee doxadi ba mënoo jàkkaarloog yenn xeeti mbugël yi ak yenn soxo baat yi nga nga nekk fi man ngaa dund fi lu yàgg di nërmalanteeg ay ay ay ay ay ay ay kon ku mel ni ku doxadi kii dëgg-dëgg bu dimbali ko boromam ci muñ rek dafay gën a dox di muñ rek moo la ci mën a génnee ci lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri bu sa bakkan bi buuree bëgg laa xëppalloo li nga doon nga bañ bu sa bëkkër bi buuree bëgg laa xëcc jëmee la ci suuf nga bañ ndax dañ laa bind ci diggante faiblesse ak noblesse léeg-léeg nga feebul a feebul a feebul ba gën a doxa di aw yoo moom daal quraan ne in humu illa kal anaami ba ci yàgg mu ne bal hum adallu waaye léeg-léeg nga noblees nekk ci yow ba nga gën a foor malaaka inna lasina amanu wa amilu salaat ulaayika humul xayrul bariya kon doomu aadama dafa nekk ci diggante faiblesse ak noblesse ñaar yi yépp nag benn bu ci nekk dafa am foo ko donnoo jenn jëmm nga joo xam ñaari maam sa ñaari maam yi di la xëccoo benn maam ja mooy maamu suuf di ban benn maam ja mooy maamu asamaan sa ruuxu gi asamaan la dëkk sa jëmm ji dëkk ci suuf maam ju nekk nag bu sañoon sëtam niru ko sa ñaari maam yi di la xëccoo maam suuf naan la waaye waay sët sama sët kaay ma waay soo ko niroo nag di wax wax ju suufe rek di jëf-jëf ju suufe rek ba ne nërmal ci suuf torox samaami asamaan ne la sama sëbbikaay nuruma waay ci jéem a jëf-jëf ju kawewu wax wax ju kawe jëf-jëf ju kawe jéem a bokk ca gaayu kawe ya ba nga xëy yàlla kalaase la ca listum malaaka ya kon niru sa maami asamaan gi sa gi dëkk moo gën jéem a niru sa maami suuf gi nga xam ne ci la sa jëmm gi dëkk boo ko defee rek torox lu jar a xel su ko defee nag kon muñ a am solo lool moom mu nag gannaaw bi ma la définir baat bi ci luxa wax la ko timit ci sariyata mooy tënk sa bakkan ci jamonoy neex neex ak tënk sa bakkan ci jamonoy naqari naqari nga des ko jéem a roy sa borom jéem ko niru nirulu ab jaam yàlla dafay war a jéema a niru boromam kuy muñ yàlla ngay dimbale yàlla man a muñ dafa mën a muñ ba bañ ko ci turam ya asmaawullaahi alxusna da nga ca fekk tur wu ñuy tuddee assabuur assabuur ala wasni faul nekk siixatul mubaalaxa du saabir de mais sabuur la muy muñaa kon dafa mën a mën a muñ muñ a muñ ba kenn mun la ko wax kooku mooy yàlla yow nag da war a àbb turu yàlla wile ci di sabuur yàllaa ngi nii bind mbindeef yépp ñi di ko bokkaale di jaamu keneen ku moom ñi nekk ci ron suufam ci di ko saaga ñi nekk fi di ko xas ñi nekk fi di ko wutal wujji ñi nekk fi di ko wutal doom ñi nekk fi di ko wutal nawle lépp mu muñ rek nekk sabuur moo taxoon yonent bi wax na ci hadis boo xam ne abi Muusa al asaar yu moo ko dégg ci mu ne qaala laysa min ahadin aw laysa min cheyin asbaru ala azam samiahu min allah innahum la yaduuna lahu waladan wa innahu la yuaafiyahum wa wa yursaquhum wa yarsuquhum wa yarsuquhum hadis la bopp Buxaari yu moo ko génnee moom kenn waaye muslim andiku ko mu ne xamul kenn ku dàq mën a muñ yàlla ci lor ma ngay dégg la ko gaa yi wax léegi-léegi ñi koy xotti na am doom moom mu leen di jàmmal rek di leen di wërsëgal kon nag laysa min ahadin aw laysa min cheyin asbaru ala adan samiahu min allah taala innahum la yaduuna lahu waladan wa innahu la yuaafiyahum wa yarsaquhum wa yarsaquhum kon dëgg-dëgg nañ nañ roy yàlla ci àbbu turam wi di sabuur suñ bëggee baaxle nañ roy yàlla ci àbbu jikkoom jile di mu jëfloo ko nga def ko lu ko lu loo xam ne lu méttee métti la ci waxin mu man koo faj léegi léegi léegi léegi léegi léegi balaa ngoon a jot mu bàyyi la fi di la dolli jàmm di la dolli sutura di la dolli xéewal bëgg sax nga gaaw tuub bala ngaa dee su namee ci yow ak texe di nga nekk ca ca loola ca loola ba far dee xaaleeg moom man ngaa dajeeg moom sax mu jéggal la bu ko neexee tamit mu mbugal la kon nañuy roy yàlla ci muñ waaye daal tooñ nañ ma tay tay xam naa doole tay tay damay fayu tay tay loola baaxut sa doom tooñ la nga mën koo faj faj ko léegi dungoo sa jabar tooñ la ñu yaakaar na yaa ko gën yaa ko gën a mag ba taxoon ñi muur ko jébbal la ko nga ne tay ma wan ko sama diisaayu loxo ngir ak manki sa mbokk tooñ la di sa rakk nga xëpp ko doole ne tey ma wan ko sama diisaayu loxo demeet yàlla may la gaat boo xam ne kenn amu ko nga jiite nit ñi yàlla jox la doole nga jël doole jooja au lieu que ñu war laa tooñ nga war cee muñ nga ne dama ciy far tooñ nit ñi sax duma leen xam nga lu lay xaar irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yërëm leen ñi leen féete suuf yàlla mi leen féetee kaw xëpp leen doole yërëm leen kon mbokki jullit ñi nañu xàbb turu yàlla wi di sabuur tabaarakallaahu def ko mu bokk ci suñuy tur nañuy xàbb melaw yàlla wi di sabru boole ko ci suñuy melo suñ ko defee rek xam jàmm te gis nga muñ tabaarakallaahu koo fi gis mu am résultat moo xam résultat wu àdduna la moo xam résultat wu àllaaxira la boo toppee tànk la ko ko jox rek muñ la ku muñ muñ jigéen goo fi gis muy sëy léegi léeg jëkkëram dóor léegi léeg jëkkëram saaga léegi léeg dépense manqué léeg-léeg jëkkëram toroxal ko ci mbooloo mu muñ ne tànn naa nekk xaram kër gi loo ma teg ma tegoo ko xaw ma dara lu may bañ nijaay wallaahi yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mooy jur gaynde kër gi waaye boo ñëwee nag wan sa jëkkër ne ko sama nawle nga xëppale foo ma dara looy jaay danaa ko jënd maa la gën a xamadi gën laa reew ah di gaynde gaynde lu ci sa kaw kër ci sa kaw jëkkër ji bu ne benn nga ne fukk bu ne ñaar nga nàngam nijaay loolu mënuma ko bu la defee lu la naqari nga wan ko ca lal ba bu tëddee nga jot sa jiin wane gannaaw commencé maanaam taf bu ca miir ba yaay jur xaram kër gi kër goo dem ñaara fa ne ñaari ñaari tooguwaay fa am ban bi ak basan bi boo tànnee yow jigéen gi toog ca basan ba bu ëllëgee sa doom jamooy toog ca fauteuil ya ca ban ba boo tànnee ñëw ferankulaayu ci ban bi ci fauteuil bi bu ëllëgee doom ju toog ci basan ngay am kon jigéen goo fi gis mu am résultat wu doom ju baax wallahi muñ rek moo ko ko may xale boo fi gis mu am résultat dema dem ba jàng nekk cadre dema dem bay faye ko ay million dema dem ba xilif ay moroomam yu bëri cëy bu la wanoon CV bi fi jaar man naa am bàyyam ku néewoon dool la nekk ci àll ba muy bayandoor ak moom bàyyi takkal ko mu ñëw fii du am fu mu fanaan fekk si ay mbokk yoo xam ne ci waañ lay fanaan xam na fi ñoo xam ne tey ay cadre lañ ci biir waañ lañu daan fanaan ñenn ñi ci saal bi lañuy ñuy fanaan ak seen man la bu ñu xëyee rek gaaw lalli ko ak aj ko ci kaw bu tàngooree terrasse ba mooy nekk seen néeg ñenn ñi buntu kër ya ñu lal ay carton waaye bañ ko muñee di jàng université di jàng ñenn ñi di muñ di bokkaati ay néeg mu gën a nekk ay cadre yu mo yu hilif seen i morom bëri na ñoo xam ne ba ñuy ñëw fii Ndakaaru dañ leen takkaloon seen i walis amuñ fi benn njaatige lu dul buntu palaasu nit ñi dangay ngay nelaw ba biddanti waa ji ñëw wéq la jugal nga jub daal di ndeysaanam xamoo foo jëmati waaye mujj nañu ñooña kër yañ romboon ndeketoo ñoom ñoo mujj moom kër yi oto yañ doon daw ñoo mujj di ko dawal ñu doon daw oto yi ñooy mujj dawal oto yi kër yi doon seen di téeméer ak waaye kër gi état sam bi ndeketoo sa kër la woon da nga koo xamutoon rek yooyu yëpp ba nga muñee mujj nga dem ba xegg foofa kon ku dul muñ doo xilif kenn ku muñ doo sa kër moo gën xam fulla sa kër tas doom ju baax ku muñ doo dégg sëriñ daara ku dul muñ doo dégg ilimaan ku dul muñ doo dégg sëriñ ku dul muñ doo dégg monsieur le ministre ku dul muñ doo dégg doo dégg président ku dul muñ doo dégg monsieur le ambassadeur waaye ku dul muñ doo dégg maanaam prof bi doo dégg maître bi ah doo dégg doo dégg doo dégg mboolem maanaam garaat yooya gaa yaay takk muñ rekk mooy tax nga mën caa yegg moo tax xoolal yonent yàlla Yuusufa nekkoon tu tànk ci roon ay doomi baayam defuñ ko deful leen dara lu dul gis nañ ne suñ baay daal moom la gën a bëgg moom daal suñ baay mii daal yëg nañ ne ni mu bëggee yuusufa ak rakkam ji le bunyaamin bëggeewut ko kenn ñu jël koo jëla jëla jël nax seen baay yóbbu ko ci xàll ba dóor ko ba fóot ay sagaram sànni ko ci kàmb pour toroxal ko ne bu ko suñ baay gisatut fam ko tegoon mu teg ñu fa c'est que dañoo xamul léeg-léeg ñàkk xam danay réeral nit waxin la fekk njàngale la ci seen biir léeg-léeg da gis foog ne waa ji moo la teree feeñ te waaje bu fa newoon tamit bu fa newutoon tamit doo feeñ ki yàlla bind ne du feeñ ba yowmal xiyaam bu ñëpp deewoon sax du feeñ waaye nga gis waa ji feeñ nga ne ah kii de bu fi newutoon tey rek man ma feeñ fexe moo def pour jëlee ko fi da ko fexee def ko jógee ko fa nga keroog nga gën a nëbbu gaa yi ne Yuusufa ngi teree feeñ dañ ko nëbbu buñ buñ ko bu ko gisatut dañ feeñ ni ko ci kàmb ndeke dañuy gën a feeñal Yuusufa ñu jël ko dugal ko ci kàmb gi teen bu yàqu bi waaja dugal fa baagam mu jàppandu ca ba génn kooko yóbbu ko naan ñu ne ko mu ngoog sama doom ji sama xale bi ñu ne ko suñ jaam la moom nañ doon seet mu ko jaay ko waaja kooka dem ba mujj jaay ko ñu koy jaayante ba mujj dugg ca pale ba pale buur ba mu mujj ga nekk ba mujj moom mu mujj xilif pale ba di kilifa goo xam ne doomi baayam ya ñàkk bay jëggaani lu ñuy dund takk seeni bagage fekk ko foofa ba mu ñëwee xoolal fi mu jaar ci coono muñ ba mujj nekk kilifa gi gaa yi xool ko ne ko ah a innaka la anta yusufu qaala anna yusufu wa hada axi qad manna allahu alayna ndax innahu man yattaqi wa yasbir fa inna laa laa yudiu ajra almuxsinina suratu Yuusuf aaya 90 ah yow yaa Yuusufa bu ne ko man mi maa Yuusufa kii sama mbokk la pexe mi ma defoon yëpp pour téye ko sama mbokk la muy Bunyaamin maa ngi leen yëgal ne wallahi ku ragal yàlla boole koog muñ loo yootu da nga ca jot te yàlla du sànq jëfi ñuy rafetal xoolal fi Yuusufa déparé fukki at ak lu teg ñu génne la sa kër baay sànni la ci kàmbu nga muñ ko ci ab teen nga génn ñu ne suñ jaam la jaay la. nga soppeekub jaam jaam baa mujj nekk di président wu dëkk bi ñoom ñoo ngi defoon ko ko foog ne dañuy Yuusufa day xées ñoom ñuy yéeg ñu mujj ñàkk luñ dundee ba takk seeni bagage ñëw mu leen dem leen ngeen indil ma seen ñoñ yi ma yore leen indil leen ma seen soxna yi ak seen doom yi yéen ñëpp tey ma yore leen leen ngeen xamoon lebal ma ko man tey lii laa xam pour fayee leen ko e laa tasriba alaykum yawma yaxfirullaahu lakum atuni bi ahlikum ajmaina ñoom ñëpp ñu ñëw Yuusufa yore leen moo tax kon léegi-léegi ngay jéem a baaree koo xam ne nii wër sa gëm wër sa gëm yàlla sa wërsëg yàlla nga ko teg ci loxoom sa yàlla nga ko teg ci loxoom sa tedd yàlla nga ko teg ci loxoom nga koy jéem a xeex fekk sa bopp ngay xeex fekk xamoo sa dara kon yéen jigéen ñu bàyyi leen nekk ci biir kër yi di wujjee di jéem a liggéey seen doomi wujji la ngeen cay def lépp ci seen kaw lay këpp la ngeen cay def lépp ci seen doomi bopp yi lay këpp bàyyi leen nekk ay mbokk ay doomi bàyyi la ñoom nangam di xeexante liggéeyante loo ca def ko sa kaw lay këpp bàyyi leen nekk ci dëkk di xëccoo ay pal yu du dara ba mu jaral leen liggéeyante soxoralante waaye léegi-léegi nit ñi dañuy soxora soxor bay xëccoo loo xam ne même boo leen ko joxal mënuñ koo doxal waaye dañ ne daal man mënuma koo doxal waaye ki ko mën a doxal bu mu ko doxal na yàqu rek moo leen ko jaral loolu tey moo baare dëkk yépp moo ko yàq foo dem na soxor tawab soxor bi fii la ëppee foo dem rek dangay wax ne tawab soxor bi ak tawab fiirante bi ak tawab liggéeyante bi fii la ëppee xañaanante goo xamee ne nii kenn mënu la ko wax su ko defee nag kon yuusufa ngoog fa mu mujjat ak doomi baayam ya waaye film la bu ñu doon suyeel waaye ñoom ñëpp nit ñu mat lañ nit ñu baax lañ nit ñu ragal yàlla lañ kon ku muñ yàgg yàgg yàgg da nga muñ yusufa muñoon na nangoo nekk jaam muñoon na dóor ya ko doomi bàyyee dóor muñoon na nangoo kabbi ca kàmbu waaye mujj na muñ nekk di président wu Égypte ba ba bu taxawee ne ijaal ni ala xasaa'inil ardi inni xafiisun alim fa mu mujj waaye tamit yàllaa ngi ne gaa yi fi nekkoon kat nekkoon ñu xeebu xamuñu amuñu ba ñu muñee naa ginaare def ñuy ay ilimaan nekk ay njiit ci seen kanami population ya wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi am amrina kañ lama sabaru mu jeex banu israila gile na nekkoon di toroxal jàpp leen ni jaam di leen dóor di leen liggéeyloo ba ñu muñee yàlla mujj na a toroxal na jël oram baag palem baag seen suuf ya gaayam ya doon loo ko banu israil wa tammat kalimatu rabbikal xusna ala bani israila kañ bi ma sabaru waaye tamit yàlla nee na ku muñ ma jox la payoor bu dul jeexati fay la ko lu mu wax wala na gis yenn lazina sabaru ajruhum bi ahsani ma kaano yaamaluuna suratul naxli aaya 86 kon ku muñ muñ kenn mënu ci dara ku muñ muñ muñay lépp muñ nag boo demee ci gaa yi yàlla yi dañuy wax ne ñetti daraja la xam xam na muñ ak ñu dëddu ñi am na muñ ak tabaarakallaahu ñuy tuub di dellu ci yàlla am na ci muñ goo xam ne ala kulli xaal dañ ko tuddee maanaam maanaam darajatu saahidiin am bu ñu tuddee darajatu siddiqin am bu ñu tuddee darajatu taibin ñi ñetti façon yi moo am mooy képp ku muñ ba bàyyi bànneex sa bànneexu bakkan nga xeex ak ba dugalu la ci kàmbu na yuusufa xeexoo nag doo bakkanam ba ba ko soxna sa sàkkoo su lay xaadi jabari buur ba alaahi kooku mooy darajatu taibin boo muñee nangoo gërëm dogalab yàlla bi ci lim la dogal mu bari mu tuuti mu neex mu naqari kooku mooy darajatu saahidiin soo muñee nag yàlla nga bëgg ndax dara nag boo ko bëggee ki nga bëgg lu la teg lu métti métti dafay soppeeku bànneex kooku mooy darajatu siddiqiin boobu daraja nag tabaarakallaahu wala yile daraja ñoo jërë xëccoo kon nag muñ a ngoog ak doole juróoy ji nga xam ne muñ xam na ko te ab jullit daram pertut lépp lu la mën a dal ci nattu wallaay sippeeku bàkkaar rek yëkkati ko waayu daraja rek xéeguwaayu ay maqaama rek léeg-léeg yàlla bëgg laa takkal garaat wéri fay say julli matut lu mënoo caa xamee garaat say koor mënoo caa xamee garaat say jàngal Alxuraan mënoo caa xamee garaat mu mujj teg la nattu nga muñ ko mu xéegi ci say garaat moo tax yonantu gis nga ko ñoo fi hëpp nattu moo tax ñoo fi hëpp garaat yonantu bi ne asadu naasi balaa an al anbiya suma al amsal yubbu maanaam yubbu tala rajulu ala xasabi diinihi fa in kaana diinahu <coughs> alhamdulillah fa in kaana diinahu sulban istadda balaawuhu wa in kaana fi diinihi riqa ibtalaahu laa ala xasabi diinihi fama yabrahu lbalaawu bil abdi xata yumsi xata yamsi ala al ardi wa ma alayhi xatiatun xadis la bopp ibnu maajaha moo ko solo ak tirmisiyu indi na ko mu bokk ci tabaarakallaahu xadis yoo xam ne yu wér a wér a wér la kon yonent yi ñoo fi ëpp nattu ndax yàlla mooy koo xam ne bala laa nattal nattu la bu la nattalee nag bu la nattalee bu la nattoo nga muñ mu nattal la xéewal yu dul jeexati moo tax mu ne danañ nattu nit ci kem diineem bu diina ja dëgëree nattu ya dëgër bu diina ja xoyofee nattu ya xoyof saxaaba yi ku ci mos a toog fukki fan amoo nattu da ngay wax lu ma def yàlla xanaa benn yàlla bëggul ma gisuma benn nattu ñun nag ku say nattu takkarnaase nga ne man lu ma def yàlla hmm. kon nag nattu yaa ngoog ak balaa yi nekk nekk loo xam-xam solo ab jullit dana am perfut bu la yàlla nattoo benn mu ñëw di effacer say bàkkaar di kafaara say ñaawteef di xoyofal ci nit ki xenu bàkkaar yi ëllëg yowmal qiyaama di la waral tamit tabaarakallaahu ay yëkkatikuwaayu daraja moo tax alquraan man yaamal suu an yujza bi wala yajid lahu min duunillaahi waliyan wala nasiran bi aay ji ci aboubacar dafa tiit ne kayfa salaax ya rasulallah naka la ñu mën a baaxee kullu shay'in jusi naahu lépp luñ da fekkee dañu koy fay fu ñu jëm yaay yonent bi ne ko xafarallahu ya yaa ababakar yow abu abubakar yàlla na la yàlla waay jéggal say rëcc rëcc yi sa tansibu ala sa tansibu ala sa taxsinu ala sa tusibuka maanaam lë waaw mu ne mu ne qaala balaa mu mu ne fa huwa mimma na bi mu ne ko waaw yow abubakar ndax dooy xam natt nattu dooy xam dooy feebar dooy jàq ay tar-tar ndax du lay dal mu ne ko ah kay mu ne ko yooyu la ko yàlla di fayee benn mu def la ko sa directement wala mu nekk indirect sa njaboot ba ci dàll woo doon dox dagg sax lampe borom seetaane mu fay courant coupé nga xam lu la naqari yooyu yëpp say bàkkaare ngay sippeeku say darajaa ngi yéeg moo tax yàlla ne man yaamal suu an yujza bi mooy aaya ji gën a raglu ci alquran yonent bi firi haddi aaya jooju ne maa yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala azan wala gammin hatta sawkatu yusaakuha illa kafara laahu biha min min xataayaahu hadis la boog buxaari yu ak muslim ñoo ko andi yonent bi nee na du jot jullit bi nekk jullit rek moo xam importance jullit bi daal coono du ko jot wala feebar di ko jot wala njàqare di ko jot wala tiitaange wala lor xataa dégg ko jam sax mu sekki ko lu dul dafa kafaara ay ñaawteefam lii boo ko xamee kay sa dara ni neexal julli rek moo am solo yii yëpp boo ko xasee donc pertut moo tax yàlla bu bëggee jaam bi dafay gaawee ay mbugalam ci àdduna su bugu jaam bi dafay yéexe ay mbugalam ba àllaaxira yéen too ko wax ida araada allahu bi abdihi l xayra ajjala lahu l uqubata fi dunya wa ida araada allahu bi bi loolu la wax xataa yuwaafiya lahu bihi yawma alqiyaama wa qaala nabiyu inna uzma aljazaa'i maa uzmi albalaa'i inna laa taala idaa ahabba qawman ibtalaahum fa man radiya fa lahu ridaa wa man saqata fa lahu suxtu kon lii la mbir yi demee yàlla bu bëggee jaam bi dafay gaawi ay mbugalam nattoom yi bëri ci àdduna nattu bu mu génn bari nattu ñëw xam nattu sëy xam nattu doom xam nattu njaboot xam nattu mbokk yu bon xam nattu xalal ju yàqu xam nattu dëkkandoor yu lay lor xam nattu ay noon yu yàq sa der xam nattu ñu lay liggéey xam nattu ñoo xam ne wuñ la lu baax yooyu yëpp boo ko muñee rek bu jeexee jeex na nga dem aljana waaye bu nammee ci jàmm bi safaan ba dafay xam jàmm xam wërsëg xam am sutura xam am am am teraanga njaboot ga baax léppam baax mënoo ko gisal benn lawlaa lépp ma ngi tegu ci yoon fekk nag bu demee ba yowmal qiyaam rek yàlla nag door a wàccee nattu ci moom mbugal ko mu dem safara yàlla yàlla musal ñu ci kon nag yooyu yëpp nu la yàlla melal na ko gërëm te doyloo ko moo gën ni nga bëgg a mel yonent bi nee na màgg ak fay ku ko bëgg a xam dangay nangoo dékku màggu màggu nattu yi nattu yi kat bu seeni borom ñooy am payoor yu mag ya ëllëg yàlla mu bëggee jaam dafa koy nattu bu gërëmee mu xam ngër mëne ëllëg bu sànjee yàlla dugal ko safar yàlla ñu ci yàlla musal kon nag muñ a ngoog di euh, ama am importance lool loolu mooy première waxtaan wi ci muñ xam naa boo ma toppee suba nag ci waxtu ma wax na nag muñ ak xaaj ya bu ma ca bàyyee ko door laa wax julli ndax ñoom ñaar lañu yàlla sant ci aaya ji ci yaa ayyuhaa llaziina aamanu ista'iinu bis sabri was salaati te booba léegi maa ngi yow ci muñ suba nag ma wax la xaaji muñ wax la payoor ga door wax ak yow tamit ci julli insha allahu in uridu ila al islaha ma statatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu unni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu